ma xam ne moom lim ma wax fa la nekk ndax moom moom ak matam cant googu bët set la fi génn bi muy ñaan ñu ngi dem marché di duggi bari na lu fi fi jaar te la fii la ko waxtaane diggante bi yu bari jaar si dimbali gim nu dimbali ci wàllu dossier tax ñu ne nañ ko waxtu jotaat na yëkkati nañ ko te saa yi ñu ko sumbee ndimbalam moo nu ci fekk yaakaar ci kenn jëwriñ Mbay Sekk wax bayit boo xam ne baat yi may doolu ci laa koy toftal ca baddabu sifa yi dafa wax ne Sëriñ Tuubaa dafa wax ne na ndaw wekk mag waaye na mag yërëm ndaw waaye na xol ya la ca toftal wàccal xulu ba naa moo ca topp lam ca jublu mooy xol yu ànd sëñ Saal cant gi li tax ma am ci ndam gannaaw seen yéene man mooy xol yépp a sot war a ma am ndam waxuma luñ ma jox de waaye xol yépp ma jox seen xol te xol bu ñu àndee yàlla feeñal ndam sëriñ xaari da ko junj léegi wax badar gannaaw pas-pas ba xol yu ànd tax ñu am ndam cant gi ñëpp seen xol jàpp ne dañ ci war a am ndam du man maa ko woote man nee naa may sabab bi waaye sa njëkku génn dugg ci rox bi dafa war nit ñëpp xam ne ku àndul ak yow liñ ko jox bu jàppee ne njariñ lañ nax na boppam ndax përëm ak wurus dees na leen méngale ci ñàkk xam waaye bu bu tëgg bi ñëwee moom dana xàmmee kurus ak pën Sëriñ Moussa Ka nag waxoon na ne xaalis lu yeexul bokku ca wurus lu xonqul bokku ca cantu tey muy cant buñ la doon waroon a teeroo ñu jàpp ko tey ñu ànde ko sëriñ bi dimbali ñu ba nu ànde nu ànde ko nii nu ko àndee te luñ ci ñaam mébét ko nga dimbali ñu ko nangu nu ko mébét rek la am ak bëggam sëriñ bi nag mooy validé nga dimbalee nii nga nu dimbalee ñu àndi ko ki yéen booba ba tey àndi ko ki yéen suñuy jaar yëpp ñëw te jublu bi rek mooy nit ñi xam ne sëriñ beccu jógu fi ndax sëñ beccu mënu fee jóg ndax sëñ Tuubaa du fi jóg te lañ doon jariñoo muy sëriñ beccoo loolu mbirum yàlla la xol yu ànd ci la lépp nekk moo tax mu wax ne mbooloo mu bari mi ci lim ak mu néew mi ci lim amuñu ci li am solo mooy pas-pas yi bu ñu àndee nekk saxal bi te man de wóor na ma ne maa ñi ma sëriñ bi boole ñu ànd ak yéen suñu jëfi jëfi 17 avril day dugg ci biir màggal dee suñu jàpp ndax fas ànd ak yéen àndee woon ak sëriñ te yéen la ñu wattee jëmmam te fas ñu ànd ak yéen ay wax dañ ko fas yéen di jëf gaaw bi ñu mujjee wootee suñu jëwriñ suñu magum taal bi suñu waajur sëñ Papa ñu ñaan mu wér te yàgg fi ànd koog zone aslem la ma waxoon ci cant kooku mooy bu kenn ñëwul woon ci jëf ñu def cant ko teg mooy sëñ Béthio wóor nañu teg mu ndax du lu ko génn kon sëriñ bi sant na bu baax li ñu sante mooy li jëriñ li nga seen wax nit la yàlla dimbalee ba desul la gis ci ay caaxaan lépp looy jëf dëgg la ci yow lépp looy wax mooy li nga gëm lii la Sëriñ Tuubaa defal la ca gën di ngërëmul yàlla yaa koy suuxat dama jàpp loo sant yàlla lu féete kaw loolu amul ndax lu gën ngërëm amul te sëriñ bi defal nu ko ba noppi dimbaleenu ak nite ngir ñu mën koo suuxat ba kenn bu jàpp bari na ñu mën a nuyoo leen fii moo xam wirdu salaat faatiha mbaa wirdu xaadar mbaa wirdu maaxuus wala ibaadu rahmaan ñi ma ci ñi mën a nuyoo leen ñëpp ba ci biir ñi nekk ci diine yonti yàlla Isaa kenn ku ci nekk nangu nga may sa kilifa loolu nag ki ko def moo mën a def ab yar buñ ne ñii baax na ñii baaxul ki yar manta yar sëriñ Saa du def ko ñu xew ku mu yar ñu matale loolu nag bu nu eggee ci am ko sëriñ Tubaa ñu yar ndax sëriñ Tubaa daaw laaj ku la jur dana laaj ku la yar ku la gën ku la yar moo la gën ko sëriñ Tubaa gën ñëpp kon bu nu sëriñ Tubaa yaree ki tax mu yar war na noo wax àddina sant na moo nu dimbali ba ñu doon ay jurit ay murit ngor gi nekkoon ci ñun mu cultivé ko ba mu màgg ci ñun ba dootuñu génn ci ngor moo tax suñu ànd bi ak yow jafewul ndax dëggu la si ñun man ñu ngi ma booleel ñu ay bokki taalibe yu góor ci jigéen ak zone yi nga xam ne ginnaaw bu nu àndee ci biir kuréel bi yëpp zone yi nga xam ne ci biir tëralin liggéey da ngaa bëgg ma ànd ak ñoom liggéey ñëpp ànd bi nu ànd di àndu pas-pas di ànd xam-xam ndax sëñ bi dimbalee ngenu du nu toog mukk ci mbooloo wax ba noppi ñu loo fu ko teg saa ñu toogee ci jataay ba ba daaneel ku fa teew gindee ku wàcc ci biiru sëñ Béthio te foofu la nu toll hmm. Sëriñ Tuubaa waxoon na mag ñi waxtaane samay kéemaan baax na waaye fexe ba doon samay kéemaan ba de ba ku leen xool xam ni ba doon kon sant nañu ko bu baax ci bii xool yépp àndee ngir jant gi mel ni mu mel te sëñ bi cant gi de seytaane nuyoo na ko boor bu ne boor bu ne waaye li ci jiitu mooy sëriñ Ba bu la dimbal dana jox aw fit ba mënta nuyoo nuuru sëriñ Ba da koy mën a jéggi ndax xatu na lépp rafet togg nañ añ yu ko mate ñu ci jëfandikoo ñëpp xamuñu leen ndax jël la ñetti nag ak giléem wax naa ko ci bëccëg te du mus du maire du député du kenn ku ñu ko jox sëriñ Béthio ñu ko jox oh. waaw mos a dégg mu ne ak cant boo dee sollicité nit ñi santuloo boo dee war nit ñi karkaral santuloo dara a wul cant bi bu subaa bu nu yeewoo mën nañoo tëdd nelaw du ñu amee kenn bor te ci weer lañ ko waajal toog nañ ci daal yëpp ne war nañoo a àddina wax nit ñi ne sant nañu sëriñ bi ci sa teewaay ndax yaay sëriñ mu jàppandee nii mu jàppandee mbokki taalibe yëpp di ñaan xool yëpp ma nañu ngir gi ñu am waaye ñu ne am nañ ci ndam ndax bég nga gën a yéene kat mooy sànq bi ma génnee ci yéen jot sa kàddu dem kër soxna Mboose soxna Mboose dafa ne biig sëñ bi ci kër gi la fanaan waaw ah. ah, moo ko wax nee na sëñ bi biig ci kër gi la fanaan ci kaw ñu di ko siyaare nee na gis na mu yor sarbet boo xam ne yegg na sax ci wax yaat ma sëñ yaat ma na ko foto ngir ñu bàyyi ko xel wuti ko mu ne ko cant ak sant sant ngeen ma fi léegi la ko wax am nay seede wóor ne moom moom moo jiitu sant moom moo ci sàkk hmm. te soxna si ne bi mu ko waxee yëpp naa aal ci moom ndax moom daa xut ci Baay Fall ñu mm-hmm. wax rek laa aal ci saa si bi ma génnee sa ci seen barab ngeen ñaanu ma tàbbi nga soxay sa Seydina Sarak ju baax bi ne waaye sa sa mbubb mi ngay daloo caddu samedi gi tey maa ko maa ko fottil mbubb bi ma soxla moo ko solal seen waajur wa def na rafetlu ma. man fu ma solee romb la nga ne rafet la kii di aajo nag man na ñëwal bëggoo de boo ñëwee ma jox la bu ma toogee ñeenti fan jox ma fukki mbubb yu gën yi ma joxe ndax li may joxe sëriñ bay tax te sëriñ tax may joxe moom ma koy delloo man du ma ne kenn am naa ngërëmu sëriñ Tuubaa nga di ma xeet ndax màngal ngi day fay mbooloo mi ma boole it nag mosuma dégg mu ma ki ki nga ànd ak ni mu doxe ngay defee dimbali nañu bi ndax yar ak teggin nañu jiital ak xam-xam. duñu jëf luñ tegul ci xam-xam duñ la wax lu tëggul ci xam-xam foo mën ci jaage dooñu dal